voilà tay dañ fi daje woon pour euh, joxe financement ci turu euh, ministre du tourisme et des transports aériens donc euh, monsieur Alimsa. euh nga xamante ne montant bi moy 177 millions 500 000. nga xam dañ ko jox membre yi nga xamante ne ni ci Renofis mu ñew ci dolleeku 122 millions 500 yi ñu leen joxoon lépp soo ko muy 300 millions nga xamante ne ni ñoom lañ leen jox. Euh, loolu nek euh, suñ ko défé euh, parce que tout simplement chef de l'État dafa ñu ne que ñu jàppale ci ñëpp ñi nga xamante ni à travers le crédit hôtelier dañoo loru ci mbass mi te bokku ci chaîne de valeur touristique donc le ministre jox ñu instruction pour que ñëpp ñoo nga xamante ni bokku nañ ci jot ci mbir mi donc ci lolu motax tax ñu jox wa Renofis di leen xamal ne rek jox boobu dafa am importance ci ci ñun li tax importance mooy d'abord Renofis de bokk ci ñi nga xamante ne nii euh, les gens du voyage des organisations de voyage kon lii daf leen touché bu baax a baax donc su ngeen xoolee seen activité dafa taxaw defuñu dara ren parce que ku nekk xam na ne umra bi ak euh, li nga xamante ne nii mooy bi dañ ko euh, aj donc lolu dañ ko suspendre donc lolu tax ñom ñu impact bu baax a baax beneen bi moy ñun dañu xam importance bi nga xamante ni Euh, ñi nga xam ne ñooy organiser euh, lii di voyage lii di hajj ak euh, li nga xamante ne nii mooy umra ñoom lañ dañu xam seen important ci développement tourisme religieux ndax ñun au niveau du ministère dafa am benn stratégie bi ñu tëral bi nga xamante ne nii développement tourisme religieux da cee am wàllu bu baax a baax ñii nag nekk ay professionnels yu nga xamante ne nii ñoom dañuy jël ay nit di leen yóbbu fi nga xamante ne nii mooy lieu religieux yi muy ay Makka wala yi nga xamante ne mooy ay Rome yooyu donc ñu ne ñii nag su fekkente ne nag jàppale lañ leen ba ñu taxaw ba mbir mi commencé waat mun nañ sukkandiku ci ñoom pour développer suñu tourisme religieux te ku nekk xam na ne euh, donc fii Sénégal nga xamante ne ni fi mu toll nii ku nekk day jéem a développer tourisme religieux am nañ site yu nga xamante ne ni mun nañ ci sukkandiku pour euh, ni ñuy def ba suqali tourisme wax nañ fi li nga xam ne mooy Ndiassane wax nañ fi li nga xam ne mooy Tivaouane li nga xamante ne ni mooy Touba ak Yoff ak yeneen ak yeneen kon ñii ministre bi lim leen digal mooy ñu fexe ni ñuy def ba site yooyu ñu exploité ko ñu fay yóbbu nit ñi mais leneen li nga xamante ni insisté nañ ci aussi mooy ñu fexe ba ñi nga xamante parce que ñii dañuy yóbbu nit yi souvent bitim réew ay makk ak yooyu ministre bëgg nag wax dëgg yàlla ñi nga xamante ñoo nekk bitim réew nekk makka ñi nga xamante ne ñoo nekk fii di Nigéria ak feneen ak feneen ci aduna bi ñu mën a ñëw visiter ci suñu site religieux yi nga xamante ni wax naa ko sànq. am nañ importance yoo xamante ne nii suñ ci sukkandikoo mun nañ suqaliwaat tourisme Sénégal mais aussi euh, donc li nga xamante ne ni mooy tourisme religieux